ay travailleurs la ñoo xam dañoo joxe suñu ñaq ak suñu doole ak suñu lépp askan wi ak réew mi ba réew mi nekk réew moo xamante ne tey lépp loo xam ne édifice la participer nañ ci mais bi ñu demee ba ñu war ñu fay suñu ak ak suñu yelleef réew mi muy njiit gi tey président la ñuy adressé muy président de la République Macky Sall loolu daf ko jël tekk ci suuf dëgg ci ay tànkam te ñu nekk ay doomu réew mi ñu war ñu jox suñu ak ak suñu yelleef moom ci wàllu boppam dañu yaakaar ni lépp lu mu wax décret lañ koy jàppee ak ay gouvernement am ñi nga xamante ni tey moom moo leen engagé moom ñëw na fii géejawaay meeting de clôture u parti bi ba mu ñëwee mu wax ci làmmiñam ñëpp dégg ko ci réew mi ak ci bitim réew ni société yi muy SIAS muy SOTRAC muy amoo muy ama Sénégal yëpp dinaa leen fay seen alal boobaak léegi nekk na fukki weer yoo xamante ni topp na mais waxu ci yooyu ci yàbbi ci suñu yaakaar weesu na tas parce que amatuñu yaakaar ci moom mais du tax ñu bàyyi tey jii levier de bataille bi nga xam ne dañ ko téye woon difficulté la liggéeykat yëpp di dund pourquoi difficulté la ñuy dund kat ci buy bu sa salaire tu vis dans des yang ngi dund ci ay difficultés waxuma lak nak liggéeykat kat bo xamanteni dañoo li nga mu war dem défar ak ak nga pendant combien d'années beaucoup d'années sans pour autant nga té te bés boo politique wala nga ñëw ak ñom ñu taxaw jàppale la kon war nga am ngor gu toll ni boo demee ba am loolu nga doon wut nga wëlbatiku ñooñee nga xam dañoo néew doole te amoon ci yow yaakaar ndax sa discours ak sa wax jaboot gi tey famille boo ci dem tey am nañu ay doom yoo xam ne jàngatuñu parce que mënatuñu leen fayal ci ci ci ci scolarité bi nga xamante ni moo tegu seen kaw bari na ci ay tey borom kër yoo xam ne wàññeeku ndax feebar leen yóbbu barsàq ndax ñàkk lu ñu jëndee ay ordinance bari na ci ay borom kër yoo xam tey dellu nañu ci ay diwaan yoo xamante ni stress lañ fay dund ak ay difficulté ndax mënatuñu fay ay luyaas ci biir ndakaaru ñibbi nañu ñu ameel presque bi ko évaluer nekk na 17 milliards